Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ya, ñuy suivre seen chaîne eh, sama xalaat TV di leen fàttali yéen a ngi seen eh, programme maanaam eh, rubrique bi chaque semaine dañ koy def muy rubrique boobu dañ ko tuddee maanaam éducation sexuelle waaye ci wàllum sexualité rek lañ ciy wax voilà muy troisième vidéo ci ci semaine bi. ñu si dalal professeur Ousmane Ndiaye muy borom Boga Bio nekk tradipraticien nekk fële ci diwaanu Kër Massar comme ni ngeen ko xamee professeur ginnaaw bañ la nuyoo ziar la comme ni ko annoncé ci vidéo bi passé ci fin bi waxoon nañ euh, vidéo bi dañuy waxtaane li nga xam ne dafa jëm ci appétit sexuel bu bari nit koo xam ni fu mu toll daal sëy mooy nekk ci xelam ñu bëggoon a xam euh, ndax lu baax la am ndéet bu fekkee lu baax la nga wax ñu lu tax mu baax si ne su fekkee baaxul tam nga wax ñu lu tax baaxul ak lu tax nan lañ ko war a mën a mën a moytoo la waaw lay euh, parce que dafa am le pour et le contre mhm. Madame ni waxee eh, proverbe français mm-hmm. tout texte est nuisible élection yi di leen mag ñi dañu daan wax ni kuy bu ne mhm. bu yàggee léegi sang la mooy mhm. koo xam ne bis bu ne mhm. farata bi bu yàggee léegi génn àdduna di nga dee ñu dem sang la loolu lañ ci jublu ni kon sëy bu bëri baaxul mooy excès bi tout excès am nag ay conséquences yu bëri yoo xam ne na ko def ci doomu aadama bi conséquences yi mooy lan mooy que ni sëy baax na toujours dañ koy wax mais excès bi moo tax ñu wax ci ëpp xëy na mën na mën na mën na indi ay dysfonctionnement hormonal mën na indi yenn jafe-jafe yi ci wàllu bu góor ki nga xamante ni ay hormonam li muy sécrété bu yàggee su bare dina dina du baax si wax maanaam mën ko mën a machine boo xam mu ne produire bu yàggee param ngir mel noonu noonu lay demee mais conséquence bi ci gën a bëri nekkul ci ko góor gi mais ci partenaire mooy nekkul ko jigéen gi soxna si tey nag bu fekkente ni góor gi de bëgg jigéen bu bopp maanaam bëgg sëy bu bopp xam nga bëgg jigéen waaw man boobu am na ñoo xam ne mën nañu bëgg jigéen ñi rek di waxtaan ak jigéen di am plaisir rek. waaw waaw waaw kon dañoo di nekk ak ay jigéen. waaw jigéen dañu la neex. da ngay neex waaw dañu mën a waxtaan ak ñoom ci am plaisir rek yu demee noonu. waaw donc loolu ñu ngi def bëgg du ànd ak ñoom. mais ki nga xam ne nag day sëy lu bari. maanaam bu digg bu cee sëy ñetti yoon wala ñaari yoon wala sàkk li loolu mën na indi impact beneen impact ci jabar bi. muy mën infection ci ci partenaire ci ko jigéen mën a dem ba nga xamante ni jigéen ñi day yaar sexe bi ñu war ma ci wax day day day ubbeeku day yaar mm-hmm. parce que sëy bu bari bi moo koy waral ku mm-hmm. joris boobu nekk ci biir day dama xamante ni mm-hmm. day day day day day ubbeeku parce que xam nga xam nga sexe yu jigéen war a mën a nekk élastique waaw léegi lu mel ne élastique boobu nag bu fekkee dem na bu sëy bu yàgg bu yàgg day day ubbeeku carrément Alex booy taw yi chaque jour bu yàggee mu yolom mu yolom waaw kay day yolom mm-hmm. léegi nag yolom boobu muy def nag su yàggee day bàyyi mm-hmm. te su bàyyee moo waral jigéen bi fu mu toog day tooy waaye mm-hmm. sëri day tooy quoi dañ loolu ci ci bu bari lay la moo koy waral ko xam ko ba am waaw léegi bu ko defee nag euh, partenaire bu góor ki am compréhension ci loolu léegi nag ñaar dafa dafa am lu mu ne waxoon naa ko vidéo mhm. ku góor gi mën na nekk moom moo am appétit sexuel boobu nga xam ne sax luy bëgg di di sëy mhm. mais war na bàyyi xel loolu ñoom si bu jigéen mhm. nga xam ni bu koy yaatal wala moom bu yaatoo tamit bu indi na fu mu toog sëriñ yi di tooy ku jigéen ki tamit bu ku jigéen koo xam ne moom fu mu toll dafa di sëy di force sax jigéen jëkkër ji pour muy seeyee moom donte jigéen ku góor ku góor ki amul appétit sexuel mm-hmm. mais ku jigéen bi mooy am appétit sexuel mooy nekk koo xamante ni bu toujours bu bëgg di sëy mm-hmm. moom bi war na bàyyi xel que ni sëy bu bàyyi boobu mën na ko indi jafe-jafe boobu ñu mm-hmm. neexoo ma ni quoi nit koo xam ni man jigéen gu am ni neexoo man la quoi neexoo feebar neexoo man ni la mooy jigéen gu am du doyal sëy waaw yooyu dafa am quoi euh, léegi léegi bu ko defee nag kooku mën na ko indi conséquence yu mel noonu te loolu bu yàggee mën na ko indi état Sénégal kon université mën na gudd mën na dugg ci domaine boobu donc bu ko defee man gis nga kon loolu mooy conséquence yi donc moo tax di ñaan pour texte yenn use yi rek. waaw dëgg la. bu ëppee day day lool quoi day day day lool. waaw moo tax ci digg doomu. ci digg doomu waaw. dëgg la donc loolu loolu ngay demee. léegi nag yow boo doon joxee conseil. koo xamante ne tey bii si néegu sëy moo xam jigéen la moo xam góor la. ban rythme nga koy jox conseil. kon loolu sax dañ kaa war a def. naa si vidéo bi sëñ bi ñu def ci vidéo spéciale boo xamante ni nit ki maanaam nan la war nan la war a sëy ñaata yoon la war a sëy parce que ndax am na lim ndax amul lim ndax et cetera et cetera ba nga xam daal dina xëy na du comme nit ñi tam seen seen nit ñi bokkuñu daal benn am nañ loo xam te mais mu am loo xam ne ñëpp dañ si mën a daje daal mm-hmm. conseil booy jox boo xam ne ku ci ku nekk rek dinañu mën a basé wu loolu xëy na sañu bàyyi moom waaw semaine prochaine incha allah ci partie du ñàkk ñu def ci vidéo nga joxe ci conseil yaakaar naa loolu mooy gën a faral xam dañ ko def vidéo boppam waaw loolu voilà waaw incha allah solo lu am solo la parce que euh, fii Sénégal dañuy yaree noo xamante ni mbàllum sëy dafa bokkul ci li ñuy jàngal kenn ku ne yaay tëñëx tëñëxi di gëstul sa bopp te gëstu bi léegi jeunes yi bu su bëgg xam da ngay obligé dem ci internet di gëstu boo demee ci internet di gëstu ba moytu nga tombe ci ay surtout pornographie mhm. surtout pornographie yooyu boo fekkee amoo dara lu jiitu si yow mën na am nga tàbbi ci bay nekk seetaankatu porno ah, finalement côté boobu moom ah. bëri na la ma ci xam voilà côté sëy mhm. parce que dama amoon bi may jaaxal dama amoon chance mhm. bi may def sixième cinquième quatrième troisième nekkoon ci benn euh, kër goo xamante ni mhm. ay grand rek dafa grand yi amoon benn grand boo xam ne dafa amoon genre livre yooyu mhm. am ay tubaab ko bind xam ne daf lay sexualité mhm. dañ ko bind donc na mais dañ ci dama ci jàppoon yu bëri yoo xamante ni nit ñi dañ koy def problème nii mais après da ngay xam ne du problème actuellement nii man sax ma naan livre boobu su ma mënoon a am wala su ma xamoon nu mu tudd naa gëstu ci waat am na ci yoo xamante ni paa nit ñi la am jox nit ñi day am nu ñu koy jàppee fekk erreur la mais yooyu yëpp nag bi dinañ ci nañ ko rubrique chaque semaine ñu wax ko benn vidéo dinañ ci ñëw ndànk nag dañ ñu gën ci xel lay nekk mm-hmm. euh, mais ci réalité du existé mais nit ñi duñ ko xam mm-hmm. mais comme li ma wax sànq comme duñ ñu ci formé amul école buy formé fii ci nit wàllum sëy nit ñi dañuy am complexe toog seen doom yi eh, di waxtaan ci wàllum sëy di leen ci conseil par exemple boo xam nga kenn ko da mën nga jël sa sa bopp misaal mm-hmm. man par exemple tey du sama yaay du sama papa kenn ku ma sa toog dama jàngal ci wàllum boo yoree soxna nii nga war a réew duñ la ko wax parce que day am kersa bi sax man nii ba mooy tudd ma wax sama doom voilà léegi nag ku nekk dangay ngay bëgg xam da ngay obligé di dem di gëstul sa bopp te gëstul sa bopp dafa am ay danger parce que dafa am ay pièges yu bëri yu ci am ay site internet ak yoo xamante ni xam nañ ni comme ni nit ñi dañuy bëgg ñëw di xam ñu def ci ay pièges yoo xam ne boo ci xasee dugg mën nga génn mën nga kale ci ci ci dañ jëm sax def ci ay vidéo dafay pornographie ndax baax na baaxul ci ak ci lan la mën a indi ci wér-gu-yaram parce que am na ñoo fi ne dañuy dem ba nekk addict maanaam tombé ci ay site pornographie te fekk information lañ doon ñu far fa ngiiroo nekk ay seetaan ko pornographie voilà <laughs> dem ba mel ni ñoom séeréer wala sàngara luñ ko mën a bàyyi te yooyu am na ay jeex loolu mel noonu ñun war nañ seen mm. message te donte man am naa complexe bi sax mooy li nga xam noonu pour jàngale yu mel noonu mais am naa dinaa forcé pour pour ñu def parce que même bu ñu woddu ñu woddu kii rek mënul ñàkk ko li ma ciy jot ci conseil ñu ne ci laaj li ma ci laaj dafa bëri mm-hmm. te dem da ngay gis ni amul âge mm-hmm. muy mag muy jigéen muy góor ñëpp dañ leen laaj bi mel noonu kon donc demande sociale la mm-hmm. ne ñëpp ko soxla muy ñam soixante-dix danaan ñi ñi nekk mag ñu gën a bëgg wàllu sëy hmm. te effectivement noonu lay demee hmm. donc boo defee nag war jot na moom def ci yenn mën nañu xam xeneen dañu war di wax yi ba nga xamante ni dafa hmm. parce que dafa nekk domaine boo xam ni Sénégal dañoo gaaw a jugé boo ci wax rek tam ñu am fu ne dëkkale aussi dafa am terme yoo xam ne boo ko tudd rek du neexee du neexut defee ak yow. waaw non dinañ jëm en toute responsabilité. en toute responsabilité de toute façon dañ ko wax yoo xam ne ñëpp dañ ko mën a dégg. te du ñu du ñu sokkee ñenn incha allah parce que voilà ay moom ñëpp lañ am nañ ñu ci war a wax la. dinañ ko wax ba nga xamante ni liñ ci war a wax lu dégg la dinañ ko defee incha allah. waaw en tant que responsable. dañ ko charia nag waaw daf ñuy jàngal ni wax. dañ ko war a woot. waaw dañ ko war a woot mais daa am loo xam ne booy jàngale ak yàcc bi ah d'accord d'accord pour fekk ko ngay wax ah ok ah, jàngal ni parce que ki ngay jàngal dafa war a xam waaw dafa war a xam mais dinañ ci daal bay suñu suñu suñu bu dañ ci wax su àq laa sax d'accord dañ ci wax su àq d'accord yàlla baax insha allah insha allah kon professeur ñu ngi lay remercier merci jox rendez-vous bu ñu suivre ba vidéo bi ñëw insha allah jërëjëf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 vingt personnes rek lay daal di jër ngir gone yu mën a nekk ci ay bonne condition ñoo ko déggandoo daw leen gaaw yóbbu seeni doom ñu jàngal leen alquran ju sell lool te waaye itam di xamal ni képp koo xam ne itam bëgg nga sa doom jàng boo ñëwee da ngay daal di def sa inscription soixante quinze mille francs waaye itam képp koo xam ni bëgg ngaa def mensualité cinquante mille francs rek ngay daal di joxe ngir sa doom mën a jàng alquran ju sell lool te képp koo xam ne nag bëgg ngaa jokkoo ak ñoom wooteel ci 77 77 536 83 85 di leen xamal na itam daaray Serigne Modou duggee Pire dina daal di taxaw bépp dongo boo xam ne nag amee nga jafe-jafe ci sa wàllu wér-gu-yaram maanaam ci mpaj di leen xamal itam daare alquran ji nag ma nga nekkee foofee ca ñàkkuran foofee ca kër Ousmane Ndiaye